waxtaan lu tax mu am solo mooy bu ñu dàqee élection yi bu ñu nangoo ñu dàq élection yi am na ay bulletin de vote yoo xam ne dañ ko defar ba pare donc ak xaalis lañ ko defaree bu ñu dàqaatee bu ñu dàqee élection yi ça veut dire que dañuy defaraat yeneen bulletin de vote est-ce que état du Sénégal am na xaalis pour defar loolu loolu mooy incidence financière matériel de vote bi mbañ ngàcce bi ak ñoom seen mais auto essence gasoil ak ñoom seen moo ko yóbbu dans les lieux de vote loolu xaalis la bu ñu dàqee élection yi ça veut dire que foog ñu jëndaat essence foog ñu utaat oto luwa ay oto ak ñoom seen ay chauffeur fay ay chauffeur ñu yóbbu bulletin de vote bi euh, plutôt matériel de vote bi yóbbu ko ci centre de vote yi loolu mais xaalis la donc loolu foog mu jaar commission des finances lan moo tax proposition de loi bi jaarul commission des finances ndax rek yaa xam te yaa xam te pour lan fallait que affaire bi gaaw a ñëw fii ngir askan wi bañ a gaaw a organiser wu